bon pour le moment jàpp naa ne pour sujet ñi nga xamante ni ñoo fi nekk d'une part dina xaw a dina dina dina xaw a teel parce que ñoo xam ne defaguñ fi deux mois. day day day day teel mais bon jéego yi nga xamante ni commencé nañ ko yëkkati mën nañ ko mën nañ ko rafetlu parce que bi ci njëkk mooy li nga xamante ni mooy train de l'état l'état de vie li nga xamante ni mooy dund dund ki nga xamante ni état. sart euh, yi nga xamante ni amoon amoon amoon na ko ñu gisoon de Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñu ko doon gis nañ ni d'une part xaw nañ ko xaw na wàññi ko ci ñoom beneen bi ci des gis naa boo gisee composition bi nga xamante ni am am am nañ ko muy mini euh, ministre yi ñu fal ministre boo ci gis rek da nga mën a jàpp ne kii vraiment c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut donc d'une part mën nañu wax ne foofu am na du ñàkk nag peut-être yenn faay yoo xamante ni. peut-être duñ dinañ ko mën a mën a mën a mën a seetlu loo xamante ni bokkul mën nañ ko wax ne ak li nga xamante ni moom lañ doon wax wax wax wax wax nit ñi mais loolu li ñuy mën a wax rek mooy dafa am euh, théorie ak pratique xam nga mën nga nekk par exemple ci ci ci ci ci terrain politique bi yu bëri nga naan bu ma ñëwee dinaa def lii bu ma ñëwee dinaa def lii mais boo ñëwee ba agsi réalité bi day wuute ak li nga jàppoon ne moom mooy am par exemple ni ñu ko waxee woon seen seen programme wax ne ah bépp post surtout post yi nga xamante ni ay poste stratégique la dañu koy def appel appel doofu loolu gis nañ ni am na appel à à à candidature gis nañ ne euh, lu mel ne port bi bokk na ci euh, poste yi nga xamante ni stratégie yu mel ne RTS ak yeneen yeneen te defuñu ko donc te boo xoolee yeneen réew yi ay beneek yooyu da ngay gis ci lool lool loolu la ñuy def da ngay gis sax ñoo xamante ni duñ doon ay ay ay ci ay nationalité réew moom mais dañu leen def appel à candidature ñu ñëw jiite lu mel ne port wala leneen donc yooyu nag man dama bokk ci ñi nga xamante ne dama jàpp ne. Eh, war nañ ko war nañ ko war nañ mën a def li nga xamante ne mooy appel à candidature mais yenn post yi jàpp naa ne ñi nga àndaloon def politique te nga gis ne ñii ñu compétent am nañ compétence bi nga jox leen ko moo gën parce que li ngay xaar ci ñoom yi dinañ niñ comprendre projet bi. peut-être du bokk ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ñoo noonu noonu lañ ko comprendre projet bi beneen bi ci des mooy euh, ñoom par exemple ni ñuy jàppee projet bi bëgg mu am réussit du bokk ak ñeneen ñi nga xamante ni koo xamante ni bokk ci dafa jóge fale rek am ay diplôme nga jox ko mu jiite ko